jigéen ñi nga xamante ni ñoo tënku ci coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci région bu Diourbel ñoom fas yéene wunoo des ginnaaw ci xeex wu jàngoro coronavirus ci loolu ba moo waral ñu defar ay yu bëri fas yéene ko yóbbu ci ñetti département yi gannaaw ba ñëwee Bambey nag jigéen ñi ñu ngi xamle rek ne lii def rek na xeex jàngoro jii di coronavirus indil la li nga xamante ni ko jigéen ñi ñoo ko liggéey dajale seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm pour participer à le fort de guerre bi président woote à la solidarité nationale. pour ñëw jàppale président ci xeex bi mu digaale pour ñu xeex ko ak Covid bi ñun dajale nañ nag ñu war a ñëw pour jébbal ko. ne leen kenn ku nekk dama jox point focal kenn ku nekk jox nga ma sa point focal ñu daje ci benn groupe commencé liggéey bi responsable yi am na ñu ci ëpp ñu dëkk Bambey joxe nañ monsieur le maire de la commune joxe na kon maire yëpp jox ñëw nañu muy les douze maires ndax ñun fukki maire ak ñaar kenn ku ne joxe nga sa participation ñi nga xam bi tamit nga xam ne kilifa lañu ci dëkk bi am ñu woon teewal fa yëf bu Bambey mi ngi dina am solo lool ci jamono ji nga xamante ni dañoo bëgg di waat école aussi njàng mi ak njàngale dafa xewle ndax dañu jëm ci waajtaay tijjiwaat école yi ci classe yi nga xam ne ñoo war a def examen occasion bu mel nii ngeen confectionné ay masques du nu mën ñun aussi en tant que bras technique gu préfet ci wàllu njàng rafetlu ko parce que masques yi dina law ba ci école yi. préfet bu Bambey ñaax askan wi ñu gën a faral mesure yi.